mu doon bés boo xam ne bés bu am importance la pour Isab de Diamniadio parce que ISEP dañuy former mais bu ñu sañoon li ñuy former ñu am fuñ ko dugal. ce qui fait que ñun dañuy obligation la ñu seet entreprise boo xam ne rek mu ngi liggéey ci domaine bi ñuy former xale yi ñu def ay partenariat ak ñoom pour que demain xale yi bu ñu génnee duñu traîner lol motax tay mo waral tay suñu convention biñu signé tay ak ONIVA parce que ONIVA dafa don entreprise américaine bu ñëw installé au Sénégal indi fi une usine de fabrication de véhicules ñun actuellement on est dans la maintenance mais fabrication de véhicules déjà, euh, déjà dafa am deux aspects hygiéniques déjà bu da fay am sept places yi fi nekkoon di fi daw yàgg fi amul sécurité polier dëkk bi yoy lay ñëw pour remplacer ba pare dinañu permettre ñun jeunes suñu jeunes yi nga xamné ñu ngi leen di former dans les compétences des métiers de l'automobile ñu ñëw ak ñom monter ces véhicules là. xalé yi dinañ mëna def stage fofu dinañ mëna participer ci fabrication véhicules yi et même euh, voilà de toute façon on verra lu ci lu ci xaj rek dinañ ko ci def daal. li daf koy gëna dëggal parce que gis nga modèle UGEP mëno ko wax te waxuloo. alternance waxulo théorie mais alternance bi mo gëna bëri parce que non lañ ko liggéeyee ISEP dañu wax né et puis xam nga chaque fois boy créer ben structure bu bess il faut nga indi lo xamné mo koy outalé ak li fi nekkoon li fi nekkoon amoon ay école de formation mais boo xoolee dañ daan former mais xale yi après dañuy daw di uti ay liggéey mais fii non seulement dañuy former mais dañ lay former ci ay compétences yoo xam ne yow boo fi jógee doo soxla ñu lay former waat pour nga dem entreprise parce que déjà ci biir formation bi tàmmal nañ la yaa ngi entreprise tout le temps tout le temps yaa ngi entreprise te xam nga xale boo ko mettre dans cette situation rek toujours toujours en entreprise dafay dem ba même bu génnee di liggéey du changer dara et puis ki muy liggéeyal du sonn aussi et ça c'est très important donc ce qui fait que ñun ici au niveau de Diamniadio dañuy obligé di xool entreprise yi fi nekk yëpp nga xam ne ñu ngi yëngatu ci activité yi nga xam ne ñun la ñuy former ñu xool leen nuwee ak ñoom ay partenariat lépp rek pour intérêt xale yi